waaw ñoo lay fay ginnaaw ba ñu sant yàlla julli si bi di ñaanal Pikine di ñaanal àdduna ñëpp jàmm comprendre di sant yàlla bu baax a baax waaw maa ngi sant bu baax a baax di ñaanal Alaaji Mbaye yàlla na ko suñu borom defal ndam. nga ànd ak Alaaji Mbaye danse lu neex ngeen bàkk lu neex mu fecci fecci gi woy woy bi mu war a daje ki nga xamante ne mooy Adama Diouf samedi incha allah ci arène nationale ba Adama Diouf di mbëru mbapat moom mu gëj a compétir loolu est-ce du feeñ moom. mais man mbëru la. te moom day dal sama kaw semaine bi yëpp ñoo dalante bu baax a baax Zoxo mbaru mbapat la Babacar Pogola keneen na keneen xam na ku su mel ni ah, mbër ah, mbëru Pikine yëpp ñooñu ñooñu ñëw di ko jàppale xam na dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom def cet ku mel ni ñoom Badara waaw ah, di ñaan sama rakk jooju yàlla na ko suñu borom defal jàmm di ko félicité si victoire bu mu jógee. amaa ñu gis ne ren année balance nga lan moo waral année balance bi. année balance du dara xëy na mun naa la wax ndogalu suñu borom la. tey bu ñu soñoon dañuy bëri promoteur tamit bu ñu soñoon dañuy bëri am benn saison boo ko bëre lu ko xam ne defe na si mbër si mbër moom ma tegle trois combats bëri mu neex trop kon bu ñu dem dañuy sant yàlla bu baax a baax xam ne mbiru suñu borom la. Mhm. na tamit bu sottiwul ren rek dina sotti déwén. Reug mhm. Reug di champion mu bëree ba pare ñu ne ko tey boo paree yow avance bi ñëw ci yow la des yaa ko neex ma jël ko mu ne ay champion ngeen da nga koo nangul champion daje ngeen si diini ma ne ko est ce que nekkoo woon leen di mayante ay contact bi ngeen di daje mënu ma déedéet ay champion la bu ndox ma ne ko maa ndox mi ndoxu jàmm la mu ne ay sase doon wala ndox boo xam ne dajeeguñ ko tey pare nga pour bëreeg rek rek wala pare goo pour bëreeg rek rek. non loolu moom lu wér la parce que tamit ñun ay champion la dañuy ñàkk ñaan boo mu nee yaakaar naa doo ñàkk ñaan loolu la rek day ñëw tamit champion la ma nangul ko liggéeyam tamit bu ñëwee ñaan ma ndox dama koy may man tamit su ma demee ñaan ko ndox mu may ma liggéey laa ko xamee woon tamit moom laa gëm waa liggéeykat la yàgg naa toog di ko wax bu weesoo loolu sekkatuñ leneen mhm. tamit dama ko doon ñaanal champion am yàlla na ko suñu borom defal jàmm parce que gisoon naa coono yu muy daj. Mhm. foo teg sa bët ci la jamono ji si làmb. làmb foo teg sama bët yéen xam neen ko parce que tamit xam nga fii tamit dañoo baaxewul di wax dañoo baaxewul di wax xam na tamit tamit loolu mbir suñu borom la waaye ñu waruñoo wax sax ñun dañoo war a am ñu ñu waxal. parce que dañoo def suñ preuve bu baax a baax xëy nag lu ñu war a wax yëpp wax nañ ko tamit waratuñu fee nekk naan kii wa kii wa kii waaw barke Sëriñ Fallou parce que lu ñu war a def yëpp def nañ ko waaw ba mu méttee ba mu neexee ñoo xuus def lépp kon tamit dafay baax tamit nit ku nekk dangay ñaan yàlla nit ku nekk nay champion mbër bu nekk di la tudd fii tamit kuñ tuddul tam bu yëwoon a dem xool li nay liggéey baaxul man tamit damay sant yàlla bu baax a baax xale yi ñëw du ma ne xale sax samay morom yi ñëw wala ñoo xam sax rawee naa tur ñu ñëw di tëkk waaw dama si sant yàlla bu a waaw Lac de Guiers boo Niang lu ma si wax lu ma si wax bëri na dañuy am ndam bu neexee yàlla bu neexee yàlla dañ si am ndam bu leer parce que tamit je pense que liggéey na loo xam ne dal na suñu xel ñun waa yëpp dañ koy ñaan yàlla na ko suñu borom defal ndam. Ama doomu Pikine champion Pikine ndaanaanu Pikine tey Pikine coow li bëri na wax ji bëri na tey wax waa Pikine leen di wax en tant que champion. non coow amul. coow na non coow nan lay amee mooy tey waja wajaay bu neexee wax waaye tey ñun champion yi xamante nañ xëy na tamit nit ñooy nekk di wax rek tey fi ñuy gisante ak fu ñuy déggante nekkul la ñuy woo média yi woo nekkul la ñuy woo waa Pikine nañ kaa gisante wala kaa ñu defante dara da naan waja waja ñu nekk Pikine ñooy nekk di wax di wax di wax di wax comprendre loolu rek waaye Pikine muy Eumeu Sène muy Boña muy Sokh muy Jalli ñun ñett kese rek nekku ñu fay mbër tamit ñooñu doxante lu rafet di doxante lu baax di ñaanal Boña yàlla na ko yàlla defal ndam suñu mag Eumeu Sène roi des arènes bi yàgg si moom lool mhm. tey sa mag euh, Mbarodi muy Balla Beye tey muy magu piki nee lu ko waaye woowu du ci bokk suba mu war a uyu nga xamante ne mooy yoon temps yi mu ngi ci woon ndax cooli loolu la tey suba lan nga ñuy wax ci loolu ak moom loo koy conseillé waaw lu ma koy conseillé rek lu ma koy conseillé yàlla na yàlla na fa jàmm am yàlla nañ tudd ñoom ñaar ñëpp yàlla nañ trouvé parce que Pape Sarr pigi na ko ñor Baba dem pigi na ko ñor yàlla na yàlla def ndox bu sedd bu subaa di ñaan suñu mag baaboo rek na ko mooy suñu mag mooy lépp moom tamit ko metti moo xam xëy na tamit bu yóbboo ah, bu yóbboo Pape Sarr yoon nekkul sànq Pape Sarr moo tax mu yóbbu Pape Sarr na day bëgg rek mu rafet xam na tamit nit borom njaboot nañ tamit sa waa duñ nit moom borom du nangu tout le temps ñuy wax si moom lii wax dañuy dem rek pour arranger ko bu ëllëgee mu bañ kaa waxal dara Pape Sarr jàpp ñaamuram baabooy jàpp ñaamuram ñaan suñu mag baabooy na xool lu rafet rek mu def ko yoon bi du yàq bi diggante bi du yàqu ndax yoon bi ci dugg. moom ñoom daal seen diggante yàqu na parce que tamit ku taxaw si télé bi di la wax lii kee tamit di taxaw di wax ko seen diggante yàqu na ñaan yaar rek Pape Sarr bu toogee bañ wax Baba tam bu toogee bañ a wax lool dong la rek problème bi rek lew maanaam buñ sama gis-gis tey wax ji du yegg si fii. buñ ma laajoon xam nga day dépendre si Baboy day dépendre si Pape Sarr man bu doon man man Ama Baldé xam naa lu may doxale dañu ñaan yaar rek yàlla na si yàlla def jàmm. merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf